en tout la bi télé lañ njëkk daje ñu daje télé def émission ba noppi ma dégg ñu naan ñu naan ko def jiis def gis def gis nit ñi ñëw di kii mu ne ko ah waaye Cheikh bi dimbala ñu Sénégal jël Coupe d'Afrique du ko fàtte mukk mu reema ma di dem yàlla def nag jamono dox dox dox dox bañ am relation mais muy relation wu nit ak nit mu nekk ku oyof mu nekk it koo xam ne ci yitte nit ñi lay dox loolu mun naa ko firndeel ndax euh, am na ku may àndal mu nekkoon ci ay jafe-jafe euh, mu di kilifa cheikh bi da doon Omar am lu ko jox ne ko demal nga joxal mako soxna yi kilifa lolou mu na ko témoigner lolou muy mota bo waxe wax bi nga wax dama koy dama koy deugal renforcer ko ñu bokkit benen xarit bu tuddu Jean-Louis ma nga ci Allemagne muy it ku bax man ak mom sax d'ailleurs ño fi andon ñu fi set si ko vraiment mbaxam ken ken na tablé wuko ci liko yalla may ci xam-xamam ci oyofam waye kontante bima am moy sëñ Bara dafa bok ci ñi nga xam dañoo décomplexer les Sénégalais moi je pense que buñ jógee ci 2024 ñu melni Cheikh Bara posé nañ ay jalons tek nañ ay djégo ci kaw table ba tax na suñ constitution sax dañ ko wara xolat lutam lu tax wax loolu parce que constitution bi day wax né so déggul tubaab ba toll ci yenn niveau yi mënoo ko bind mënoo ko lire tu n'es pas éligible mëno fi doon président wala kilifa nga gis né biñ tollé ci moment bi nga xamante ne intellectuels yu bari dañoo déserter le terrain. ñi nga ne dañoo jàng am ay diplôme xam-xam ak whatever jëriñu dara Sénégal lu dul bindi livre dugal ci ay tiroir nga gis koo xam ne doomu daara la à travers moom ngay gis ay analyse yoo xam ne pertinance bi muy am tax na ba éveil des consciences juddu ci ñu bëri tax na ba ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne ñoom boo jàngee daara rek yow bokk too ci société bi ba tax na tey seen place ñu replacé waat leen au cœur de la société tey jóge ci daara ak jóge ci école moo fi yem amatul nitu daara bu am complexe te bokk nga ci ñi ñi décomplexé nitu daara yi et loolu dafa am solo moo tax sa jàpp bettul kenn amul Sénégal kuy yeewoo fii ku jàppum Cheikh Ba. waaye faaw ma wax ndax fii bi ma fii njëkk ñëw ci cadre détenu politique yi la woon na ma na may tàmm di tooñee gaa ñi naan leen dem nañu ñu berndeel ñu. ba noppi nit koo xam ne mu ne la saa yoo leen xewlee te ngir détenu yi donte jàpp ñu doomam jàpp ñu sëtam jàpp ñu soxnaam jàpp ñu yaayam jàpp ñu papam amul ku ñu jàpp ci ay mbokkam mooy ñi ñu jàpp ñëpp ay jàmbur lañu ci ñoom mu ne la saa yu amatee manifestation wala jéego boo leen ciy dox woo leen ma dinaa leen ci fekk si ci kuréel googu laa xamanteeg moom bi ma fiy ñëwaat deuxième fois ci biñ koy tëye la ma ñew setti soxnam si muy jambar lol di Linguère di jambar lol sax jambar jo xamne nanguna dogal kon ñoo ñak wax waye nek na kaso dignement génn kaso dignement ba muy genn bobu ñu ngi ci yu magal gi ñu ngi ci digg safar après magal gi dama wat ci kasso gi fuma profesor dem ba ci professeur Cheikh Omar Diagne nee na sant na la gërëm na la ndax ci bésu magal la muy xat xawma touba la xaw ma fii la jóge waaye biir na ma ni tuubaala doon dellu dellu na ci ay mbokku détenu am yóbbul leen bernde yëkkati ci alalam jox leen am ñu mu dugalal ba ci ñoo xam ne amaana euh, du ma ne sax miinante ñu woon waaye jàpp na ni situation yi ñuy dund métti na mu yëkkati am amam def ko ci kuy doog a génn kaso te nga waroon tëdd dallu waroon a faju waroon a noppalu wala waroon a màggal ndax man mii yàgg di dox ci détenu yi sax ba su màggal ba mu jotee damaa dem màggali te lendemain bi laa agsi waat Dakar waaye muy wone dimension bi nit bi am mooy avant ñu koy jàpp mu ngi doon xeexal détenu yi saa yu manifestation amee moom moo lay soññ ci wax leen ma ñaata ngeen soxla